noo xam ne li ci mun jàpp mooy. man bi ma nekkee professeur rek lu ma neex ma wax loolu moo tax nag professeur neex. dama doon toog ne Abdou Diouf dégg naa mu wax li ànduma ci maître Wade bëgg na def telle réforme ànduma ci mais léegi nekkatuma professeur rek léegi dama nekk professeur waaye itam bokk nag ci gouvernement nekk ministre ministre d'état laa sax du ma ministre <laughs> ministre d'état ci wetu président président ne wax boobu. dama bëgg léegi ñi nga xamante dañoo bokk ci man bu ci kenn waxti soo lañ ko waxee da ngeen di alimenter polémique léegi ñu ne eh Ismaïla Madior moo bind affaire yi moom wax na lii nee na mu indi coow te wax na dëgg de bi ma ne en principe man foofu man en principe ma ko doon wax nii waxu nii la woon rek ah. Ah bi ma gisee le lendemain le lendemain bi ma gisee coow bi mu indi man dama jaaxle sax xam nga ñun universitaire généralement sooy wax doo wax comme. loolu la ko malheureusement c'est la rhétorique waaw waaw c'est dañ lay wax oui euh, est-ce que ce texte est applicable nga ne oui en principe il est applicable noonu la ñuy waxee quoi donc man ma ne rek oui en principe mais en principe bi coow bi mu jur dama ne président Macky Sall wax na ku fekk ku ku nekk ci moom nekk ministre d'État mu ne la lii buggatuma ñu wax ci parce que suñu waxee day indi polémique te polémique boobu man daf ma yàqal sama liggéey ndax dama bëgg liggéey mandat ñetti at moo xaw ma waaye la dama bëgg liggéey yow mais di nga wax ni dara leeragu ci dañoo bëgg nga wax leen ndax président am na droit troisième mandat loolu laa la wax. waaw même bu la wàccee suba nga ak professeur nga. no man professeur laa moom. Mm. ba éternellement. professeur laa Sénégal professeur laa ci université yu bari ci monde bi. dans ton intime conviction. mon intime conviction. oui mon statut de ministre d'État m'empêche de l'exprimer. d'abord ah parce qu'il y a une obligation de réserve qui pèse sur moi su ma ko nekk loon nag. ma ne léegi nekkatuma ministre d'état président Macky Sall dootul sama dootul sama kilifa dootul sama patron lu ma neex laay wax su boobaa boobu ma wax mais koo xamante ni y a une obligation de loyauté daf la dénk mission nga war ko jàppale ci mission bi war ko jàppale ci politique ngeen di liggéey mu ni lii bugguma ko ci wax yow nga dem fële ne wax nga ma waaye man lu ma neex laay wax su boobaa nag xam nga lan moo lay dal manque manque de loyauté moo lay la nga waxoon répété ko ñetti yoon dama ni leer na benn yoon amul droit bii xaw ma sa waxaat ko répété waat ko trois fois nga répété ko vaar bu amoon léegi ñu génne la ko fii mhm. loolu bu ñu la ko tegaloon léegi doo doo kii non bi la contexte boobu dañ ma ko laajoon ma wax ko parce que boobu yaakaaroon naa ne non yaakaaroon naa ne war naa ko wax waaye contexte bi ñu nekk nii mhm. pour man président dafa ne buggul ñu wax ci ndax dafa dafa jàpp ne mun na nekk ci li nga xam ne day yàq liggéeyam indi distraction bu leen ci wax man mi nga xam ne da damay liggéey ak moom te ci liggéey bi moom mooy sama kilifa ne bu leen ci waxat damay dégg dag digal